délégué ma ñëw. na ko dugg internet mu tàppee lan mooy lu tudd parking ñu leeralal ko ko. ma ñëw bind ko. ah bisimilah kon ne kon ne. parce que man jàng bi baaxul ki ko doon jàngal. kon kon prof bi baaxul quoi. dèjà déglu woon nit ki doo déglu da ngay. xam nga lii indi wuñu fi. aji posé waat na la beneen question kon da ngay avance ci beneen question. waaw après ñu waxtaan ci bu paree. waaw pour li ñu wax ci Wally Ballago Seck. ne moom aussi.

ci coowu Elimane man. Ah, men Doro wala Elimane Lam. Doro Gueye ban waa léegi bu ko ci joxee convocation ban convocation lañ ko ciy jox. Mm-hmm. Hmm? mu wuy jërëm. parce que wax nañu ni promoteur laak euh, ministre rek am na ñeneen ñoo xamante ne tudd na leen tam. Ah. barkeb Serigne Saliou mi ma yaakaar at jëm fii ma toog nii Doro tudd fa turu ma Samba tudd fa turu ma Demba. Hmm. Doro moom la am jafe-jafe. assumé ne moom la moom la am problème am tudd fa ma Samba tudd fa ma Demba du di du Macky Sall du ni Marème du ni Waly du ni Iliman du ni ki nga tudd sànq li ñu koy waxatee. Aziz Ndiaye. Euh, mm. kuñ la wax Waly euh, Doro Gueye tudd na ko fa ay kàcc la ndax ñooñu jege wuñ fa te xamuñu fa demuñu tribunal. Mm-hmm. loolu pour lan waaye yéen Doro dina toog ñu jàpp ko ñun ñëpp di xeex pour ñu bàyyi ko. Mm-hmm. ay avocat xam li ci biir kii bi duñ génne ne waaw affaire bi dafa yaatu ñu ngi ko bokkal bëri na kon na yoon dem jàpp ñoon nangam nangam. Hmm. loolu ay avocat ñoo koy njëkk a wax sax bu amoon. Hmm. am de sa waay pour défendre seen client. mais est-ce boo xamante ni peut-être sénégalais. kaay nag wax la waaw. ku mu jàpp fonk la. Hmm. am na lu ngeen seq. loo xam ne yaa ko ji muy teraanga. te dooraat Waly dañoo dem ba dépassé dégg naa ay waa dé li ma la wax ay xarit lañ wala ay dagam diggante papa la at doom. loolu lañ seex. séddoo xaalis waaw xaaral non non non du affaire bi du ah, séddoo xaalis du ñu séddoo waaw waaw boo ko neexee jël xaalisam may ko waale. Hmm? ko neexee jël xaalisam may ko door lu seen nga ñu lu seen yoon. Hmm. sëñ bi nañ bàyyi bu ah, bu jafe-jafe ñu jël waali naan waali taq na ci wala nangam. te ah, ñooy wax loolu ñu waaw mais c'est normal waaw mais c'est jàppee rek xarit boo am dañ lay boole. ay ay chèque ñu war a topp tracé buñ fa gisee. waali chèque du ñàkk loolu am. ana dama ni bu dee a bindaloon na ma chèque bi sama tur nga fa kon ah nañ ma woo. ñaata ah. ñaata. so yow nekkul ci ñaata. nañ ma woo. Hmm. fekkee kuñ bindal sec rek nga am problème ñu bindal la sec rek ñu woo la. kon dañuy dem wuy ji dina bari sec ñaata ah déggoo ma ni la. ani bi. dinañ déggoo ma ni la bindal na ma sec kon xanaa man dinañ ma woo. retiré nga ko pare. déggoo déggoo ma de. bu dee dañ dooro kum hmm. bindal sec ñu woo la. Ah. nañ ma woo bindal nañ ma sec nga wala bu ma demee di dem machine dem. <laughs> Ah, li a woo. ndax moo doon toog naan xippi xool di ko defal promo aji ñun mosuñoo lekk dara nag wax dëgg neex yàlla. barkeb Serigne Bamba. billaahi wallaahi wa bu fekkoon ne yoon. bu fekkoon ne yoon. bu fekkoon ne yoon. am na am nañ sañ-sañu yoon ne nit de jàpp nañ ko. kaay jël palaasam nga tëdd ko. wallaahi ma defal ko dooro. Ah waaw. parce que man xamna naa lu tax. comme ni nga doon defalee ak la bu fekkoon ne am nañ sañ-sañu ñu japp nit ñu ni bo ñe ñu manam may nit pour mu ñew tëddal ko ko billahi wallahi wa taala ma dem tëddal ko ko mu genn nek ci jamm ndax Doro dala don jox par daf la yoron daf la dafa am lum la teeloon. man ken yoruma nak señ tuwa ma yor. waaw ah, lu tax nga nga bëgg jël mbir mi am ko te Doro amna na ay mbokk. lolu sa nga ñu nekku ci sama digënde mom la. mais jamono ji boo waxee noonu dañ naan Dora lu seen yoon yor la yor boo lu seen man kenn yoruma ma bàyyi leen yor mais critique yi dafa bari parce que ñu bari nee nañ Dora Gaye dafa am ay mbokk am na ay rakk am na ay mag pour quoi délégué jël coow li bëgg ko def coow boppam ndax sa poche la Dora yoroon euh, yoroon ko peut-être sa poche amatul dara wala sa compte bancaire dala daan jàpp di la fayal location yooyu amatoo ko la ko defal quand même waaw du Dora du Cheikh Amar du Waly Seck kenn ku ma mos a fayal location baa nga xam sama kër li may fay hmm. ndax dégg ma bu baax. joxuñu ma dépense fayaluñ ma ndox fayaluñ ma kër dégg waxu nit laa la wax de. du Waly du Cheikh Amar du dooro ku xam sama kër li may fay hmm. luñ ma dépense fayaluñ ma ndox fayaluñ ma courant. man dar maa ko laa te am naa sama jomu bopp ba yegg si fii ma yegg si te lu ma am maa ko laayifal sama bopp tax taxawuma benn bureau bureau kenn taxawuma kër jàmbur ngir yàlla bu yàlla defee liberté ci doole mu génn ci jàmm ngeen amee occasion at moom laaj leen ko ba xam mos naa yëkkati délégué mos naa gis délégué bureau mu koy demande service wala mu koy yëkkati xaalis sec boobu li ko waral mooy ci liggéeyab Serigne Saliou la muy xel kom la ma jox ne ma dugalal ma ko ci liggéeyab sëriñ saaliw mm-hmm. te benn yoon la 2022 la set boobu ndax dégg nga ma bu mujj bi bu mujj xel comme ju mujj ji damaa woo ba ma ñëw mu yëkkati ay koppar liquide jox ma ne ma liggéey ci Serigne Saliou dugal naa ko ci mm. loolu waaw xaaral rek xaaral rek xaaral rek ah. euh, seq naa ko at moom mm. waaye liggéey sëñ Saliou boobu mu yëkkati ñaxam def ko fa tax na fu ma amee jafe-jafe ci àdduna fiit maa ngi yor bakkat di dund damay taxaw Ah, ndax sëriñ Saliou. ndax jëmmi sëriñ Saliou at ni mu def son excellence président jàmmi réew mi. at ni mu at maanaam sutura si door a am at mbaax gi door a baax at yaatu gi mu yaatu ba tax na at leneen sax xam nga door a tey ji mhm. am na ay malaat yoo xam ne tey. Eh. ah am na ay malade yoo xam ne tey. billaahi da leen a defar ci lu bëree bëri jàppale leen ci seenu malaat te yooyu da yàlla daa dogal sama ci man mii la ko jaarale. Mhm. waaw damay xool ci tiktok bi bees yàgg ma gis benn malaat boo xam ne dama koy njëram. ma wàcce vidéo bi jël numéro bi woo kooku jël vidéo bi yónnee dooro yónnee ko numéro bi mu nuy contacter leen nga contacter ñu ñëw mu dimbali leen jël ko en charge ay 5 millions 6 millions lay doon jëm kaw mm-hmm. waaw lu baax loolu xam naa ko ci moom at bi ma nekkee ci kaso bi détenu yoo xam ne bi noon naa seen tur amuñu avocat ma génn jébbal ko liste bi mu jëloon ñëpp avocat ñu libere leen su ngeen bëggee détenu yi mën naa leen woo ñu toog fii def loolu xam naa ko ci moom mm-hmm. xawma ko ci ak ñàkk fayda xaw ma ko ci ak weer nit xaw ma ko ci ak ñàkk teggin ci yaru ci mbaax ci tabe laa ko xam kon kooku mën naa wax ne sama nit la te loolu moo am fii ba keroog muy am jàmm mhm. lu baax lu ma xam dinaa ko wax lu lu ma mën a wax ba mu génn dama koy def ba tan déggoo leen tënkal naa la ne lan bu fekkoon ne yoon may na nit mhm. ne la kaay jël palaasu kii moom mu dem ma dem def ko mais li nga waxoon ne biroom casino la nekk loolu man la ko wax <laughs> ah gars yi dee la ko laaj. kan moo wax loolu kan moo laaj loolu. sama confrère yi. kan la ah kan la ci ci ñoom. bureau bi kasi. mbay ah? bàyyi ma ngi ni juuti lay jaay. ki sa bàyyi di jaay juuti nag. waaw moom bàyyi mi def PMI nag PMI. waaw yow sa bàyyi lu mi def PMI. waaw te yow sa bàyyi li bon li gën a araam lay def mooy PMI. ah sa waay. li gën a araam mooy pay mi te bàyyam moom lay def. d'accord moo moo affirmé waxuma la casino de. naas fokk leen xaq rew kaaram ron déglu déglu ma rek nit day wax dëgg. waxuma la casino dama ni la. non non non dama ni la. teeru bi laa lan at la ma woo ko fekk teeru bi. Mhm. mancé déglu ma rek yéen li ni déglu ma rek li gën a bon te gën a araam moom ngeen di def muy pémi pémi gën a bon manc li li ko may lii pémi la di Abonnez-vous, ciao le Sénégal